parce que yàlla def maa bindee dama koo nangul man damaa nangul sama yaay lool sax nag. lu mu bëgg bëgg su ma masaana jàngale ba weer dee bañ fay ma sama xaalis ñii mu ma cee jënd gerte caaf. Hmm? déedéet. lépp nga koy yor. dama ne la ñi mu ma cee jënd gerte caaf Louga lay paas ñëw ba Mbàkke ne ko lii laa am nañ ma baal booba ba vingt cinq mille lañ may fay. danaa fexe ba indil ko 24000 yi. 1000 francs yi nga paas ci. 1000 francs yi ma paas ci su ma ñibbi it dama koy ñaanaat mille francs. paas bàyyee ko 23 yi. bàyyee ko 23 yi paas ñibbi. doo ci jël dara. 23000 yi du ma ko laal. après nga def nan. ñibbi wutiwaat beneen weer yàlla xam na ko nangul ko ba it su fekkee robinet dañoo tëj muy root guddi. ndax ay doomu màggaguñu maay ànd ak moom ñemewuma fa ca ca ca robinet ba fa mu nekk. Mm. dañuy àndaat ñëw ci kër gi àndaat demaat. maanaam dama koy gunge ba mu sotti paanu ndox bi ñu ànd dem ma yenaat ko ñu àndaat ñëwaat waaye mënumaa ñemewumaa toog ci robine ba. duma ma fa ñeme man dong. donc damaa bëgg xam ne sama yaay dama ko nangul ba fii ma toog ni noonu laa ko nangulee. yàlla xam na ko. kon ba tey yaa ngi dund sa relation ak moom. bu baax. noo koy dundee oustaz ni ma ko ni ma koy dundee mooy. doom yi mu fi bàyyi. bu ci kenn ñëwoon ne sa garam gu bii laa soxla. fii ma toog nii laa ko si mu jox doom yi mu fi bàyyi góor ak jigéen nag.